ñu bàyyi xel ni maam Saliou Fall ngi nii toog moom sëñ Modou Moustapha Fall moom Cheikh Ibra waaye jàmbaar ñëw na muy sëriñ Cheikh Bintu Fall muy sëñ Modou Ablaye muy sëñ Ablaye Fall Ndar bal Fall yaa ngi nii Cheikh Ibra Dieng ñu ngi leen ndokkeel baax di la siyaare di ñaan yàlla defal la jàmm waaw ndeysaan moom gis nañ ci écran bi Cheikh Bintou Ngom léegi nag ñi ngi bàyyi xel bu baax Serigne Mbaye Ngiraan mi ngi woon fi waaye xam naan dafa génnoon rek waaye dana ñëw léegi waaye dañu dañu wax ni Serigne Youssou ñu ngi lay siyaare bu baax di la ndokkeel liggéey bi tubarkalla macha allah yaag mbooleem is bu tarxiya lii dafa am lu mu nu jàng la muy tegu coon de jëfe ndigal rek ndax murit amadul ndigal kon nag ndigal la ñuy déglu ndax sëñ Muntaxa yow la woo ne ànd ak yi léegi rek sëñ Maamu Ndaw dañoo bëgg a toog ni yi waaye ñu ngi fàttali sit yu bari ñu ko def en direct rawatina Mouridiya li nga wax bi ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci Lamp Fall àddina bépp jëli ci woo ñëpp bàyyi nañ ko xel waaye nag Baye Cheikh Ndaw mooy sa maam ñu ngi ñaan nga yàgg fi waaye soxna Soda ñu ngi lay ñaanal baax yàlla guddal sa wér sa cër jër tout grand homme il y a une ji góor baax na jigéen baax na jigéen ñoo nga dem ñëpp ay jiwar liñ jóge fépp ci réew mi ngir lan ñaari bis yi waaye sëñ Mamoun ñi ngi lay jox na kàddu gi tey bis bii Cheikh Ibra moom kenn moomu ko séddiwu ko kenn te bu du waroon moom kenn ci jot yow lañ jox kàddu gi nag nga xamal nu mën nu ko mën nu ko xam waaye la a ci xam a gas néew nu xamaale ko Cheikh Ibra waaye nag ngi saar sang yi toog sëñ Saliou nan leen jox réew mi nu noppalu benn yoon bu ko defee nun eh, eh, ndigal jëfe man de loolu laa gis sëñ Mahmoud bisimilah. bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu kilifa yu baax yi fi teew tàmbalee ko ci njabootuk sëriñ tubaa Cheikhul Khadim ak njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall baay bi Mouridina. di santaat bu baax ci jotaay bii ñuy fàttaliku julli gi nga xam ne ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba julli woon na ko ci géej gi waaye cër bu duun bii ngeen jagleel maam Cheikh Ibrahima fal sëriñ bi sant na ci njaboot gi sant nañ ci noo ngi ziar kilifa yu baax yi fi teew yëpp tàmbalee ko ci sëriñ Cheikh su njaay mi nga xam ne moo fi jóge léegi te bàyyi fi njabootam gii ak rakkam gu baax ji ndax sëriñ am di Fall moom sëñ Mut Fall benn di maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko yebal ci bis bi te bis bi bis bu sëriñ bi fonk la te loolu am naa ci lu ma xam te loolu umput soxna Soda Xuma mi toog ak sëriñ Yuusu Jóob mii bis bi keroog bi sëriñ bi jox ndigal sëriñ Cheikh Assou Ndiaye daf koo woolu ba mu ñëw ci biir këram mu ne ko damaa bëgg nga teewal ma ci bis ba booba kilifaam yépp a ngi toog tàmbale ko Serigne seex njaay Mbeng ak njabootu seex Modou Moussa Fall gépp nam ko daa defee ci jamonoy Serigne Modou Amin Tafal ba tey dara du soppi ndax seen maam seex Ibra ne luy gën dëkku ci yoon bi moo tax cër bi ngeen jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg nañ ci te mi ngi tàmbalee ci ki ko fi nekkal mu Serigne Amdi Fall Modou Mbenda waaye gannaaw ziar yooyu ñuy ziar nag Serigne Cheikh su njaay ziar yëpp dañ koy teg ci loxol rakkam ju baax jii muy Serigne Saliou Fall di doomi seex Cheikh mu Moussa Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall baay bi muur dina moo kii fi bàyyi ko léegi di Serigne Cheikh Sunjaay ñoo bokk wenn wayju doomam ju baax jii toog seex Cheikh Bintou Fall Cheikh Modou lay Fall ndar mooy wayjuram kon su ngeen doon diir mën a jàmm ngeen ndax njabootu Cheikh Ibrahima Fall ñëpp teew nañ yemul ci ñi sant Fall rek di wuyoo Fall waaye ñi nga xam ne ñoo àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall ca ca ca ca ca ca Gànjool wala ca Ndar ca yoon wu njëkk wa ba ba ni Cheikh Ibrahima di wàcce di dem bàyyi leen ak Cheikh Moudou Moustapha Fall bàyyi leen ak njaboot gi kenn desul bu ma tuddee ñaar ñii danañ yóbbaale ñëpp ñaar ñii dend maam Cheikh Ibrahima Dieng mii waa kër Cheikh Babacar Dieng la mooy waajuram bàyyi Malick Sarr mee toog bàyyi Modou Sarr matt mi tarbiye maam Cheikh Fall ci gépp daa indi matt ma mooy bàyyam te Cheikh Ibra nee woon na jur bafi ak gërëm ba fi fi ne kiñ jur bafi war naa fexe ba dégg kiñ gërëm bafi waaye kiñ gërëm bafi war naa fexe ba dégg kiñ jur ba kon ñiñ jur ba ngi fi ñiñ gërëm bafee fee ngi kon bis bi kenn manqué wul ñëpp ñëw nañ sëriñ Youssou Diop mii di jëw nii ni daayira Hizbut Tarqiyyah waaye di jàmbaar joo xam ne léegi la ko sëriñ si Asu di wax na ko noo ngi lay bàyyi xel noo ngi lay bégge noo ngi lay jaajëfal noo ngi rafetu liggéey bi danaa la danaa la wax loo xam ne fii noonu mu la ko waxee mbooleem ku bokk ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall amel na la jaajëf ndax seenub liggéey yoonu murit yëpp njabootu Cheikh Ibrahima Fall gii xam nañ gis nañ am nañ yéene ak passéef ak pas-pas ci seenu joxoñ ndax xam nañ ne da ngeen a dégg maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina te la ñu Cheikh Ibrahima waxoon rek ci ngeen teg seen tànk daa waxoon ne jamono ngi ñëw doom dana lëndëm lool Cheikh Ibrahima ko waxoon de maam Cheikh nee na waaye su boobaa li ma leen digal mooy sex ci ndigal tey bàyyi tere tey jàngi xasaay di sëñ Bamba yi te toog ci seen kër te fu doomi sëñ Bamba aw ngeen aw fa ndax doomi sëñ bàmba lu mu gàtt gàtt xam-xam Cheikh Ibra ne xam lu yor jamono foofu ngeen teg seen tànk kon la Cheikh Ibra waxoon ci ngeen di dox kon jaa ngeen jëf sunu jur bu baax wii di soona Soodu Xumma nag te jiite liggéey bii di jàmbaar lool joo xam ne naka jekk bés bu yàlla sàkk liggéeyu kuréel gii addi yaa ngi fi bàyyi ko di ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina ma teewee man ma fekkee ca sëriñ Modou Amine ba ci sëriñ Cheikh jëm ba ci sëñam di Fall Modou Mbenda bés bu yàlla sàkk addi yaa ngi bàyyi fii ñu ñëw ci ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall na ko waa kuréel julli géej gi ñoo yónnee addiya ji ngir jox ko Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina loolu maa ko fekke du ma ne kenn nee na ma kon liggéey bii ngeen liggéeyal sëriñ Touba te sédd ci maam Cheikh Ibrahima cër bu yaat njabootu Cheikh Ibrahima Fall bég nañ ci taalibe yëpp bég nañ ci jaajëf nag Cheikh Ibrahima nee woon na gàtt na waaye ku jëfu dara doo ko dégg waaye rek jotaay bii Baye Ibrahima dafa am xar kanam bu feeñ jërëjëf sëñ Mamour Mbaye di la siyaar bu baax tey siyaar gan gi ndax jëmm ji toog muy sëñ Saliou fii ci ndakaaru xam nañ liggéey bi muy liggéeyal maam maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina te kenn doo nga dox diggante ma Cheikh Ibra muy Cheikh Modou Moustapha Fall te kooko njëkk a wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall te 57 ans rek la dund ndax 1893 la gane jamono siiw na lool ci tasineer la gane jamono siiw na de waaye 1950 la fi jógee ca Touba Fall kon 57 ans la dund Serigne Cheikh Bintu mii toog wayjuru bu baax wa mu Moudou Ablaye Fall Ndar Serigne Moudou Moustapha Fall wayjuru jëmm ji lañ ko dippe moo ma ko wax sëñ Moudou Ablaye moo ma ko wax. kon dafay mel ne liggéey bi suñ xoolee ci jëmm yi teew rek dañuy xam bu wér ci ne Cheikh Ibra Fall mi ngeen di dàkk bu ngeen doon diir mën a jam ngeen ndax jotaay bii ngeen am. riis na lool ci ku ko xam ku ko xam dëgg-dëgg xam ñi teew ñooy ñan ak lan lañ doon ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina tukki bii nga xam ne bërki dem moo njaay ñu ngi ciy door a génn bis bu màgg bu tedd bii ñu ñu doon fàttali tey jii ñu dikk ci julli géej gii bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di dem Cheikh Ibrahima Koungheul. bi Cheikh Ahmadou Bamba di dellu si Cheikh ko gatam moo tax mu ne ko woon maa gëm sëg dem gëm sag dellu si balay sa koroog bi Cheikh sëriñ ku tedd ki di bàyyi ko ndar di ñëw ndakaaru ndar la bàyyi maam Cheikh Ibrahima Fall Baay du Muridina waaye bi sëñ bi demee ba war a dem Cheikh Ibra ñëw na fii ndakaaru diir bi sëñ bi nekk ci géej gi yépp yitteem jëpp mooy sancal ko ay kër ndax fu mu wàccee lu mu gudd gudd du tumbaranke fu mu wàcc loolu moo war a kër gi ci Lambinaas Serigne Cheikh Bintou mii am na bis bu mag bu mag bu muy defal di fàttaliku Lambinaas fii ci Masaliku Jinaan te Lambinaas Cheikh Ibra ko jënd muy suufu boppam te njëkku fa parce que fii ñuy wax rival mi ci Ndakaaru ñu koy wax yàq jëf ca turu njëkk ya fa jëkk jëndal kër maam Cheikh Ibrahima fal ku tedd ki ba mu ñëwee di ko sanc laaj kër dëkk dëkk bi nu mu tudd quartier bi ñu ne ko yàq jëf mun a nañ ràndu fu jëf di yàqu Ibra Fall du fa dëkk mooy rival mi tey waaw mu door a dem jëndi fii ci la menace gunge ko bi nga xam ne ku tedd ki mu ngi dellu si itam 11 novembre 1902 du yàgg dara ñu di ko fàttaliku fii ci poor bi ci la Cheikh Ahmadou Bamba wàcc fii Cheikh Ibra Fall ko gàttandu te booba Cheikh Ibra ngi desoon ndar lépp lu xam ci tey sëñ bi. ak lépp lu mu jàpp ne sëñ bëgg na ko Seex Ibra teel ko sëriñ bi fii ba sëñ bi dem ba sëñ bi dellu si Seex ko fii teg ko fii ci gannaawam ndaw ak moom la menace ganale ko fa sëriñ bi door fay jóge dem te booba fekk na Seex Ibra lu ne dégg na ko te taxu koo xaj taxu taxut mu deltu gannaaw moo tax cër bi yelloo na ko lool yoonu murit yoon wi ndam loo fi gis rek Cheikh Ibra ko moom ndax bu esegoon Cheikh Ibra la ñuy joxeñ kon bu ndam ñëwee koo koy jox dama ne bu esegoon Cheikh Ibra la ñuy joxeñ laa wax bu ndam ñëwee koo koy jox ndax keroot bam sëñ Touba demee ci géej gi lu ne dégg na ko Cheikh Ibra waxal boppam ne lu nu irafal wasin na bii dégg naa ko te bëgga doo wasin lu waxal ma ko lañ ko njëkk a wax mooy lu ko dal yaa ko teg ndax yaa ko topp di ko jay di ko jay di ko jay ba tubaab yi jàpp ko yóbbu tubaab ku mu jàpp doo dellu si léegi Ibra Fall ñàkk nga ko ñàkk na ko te nga dellu say bokk xanaa awoy bokk jay nga koo jayee jayee jay ba tubaab yi da ko coppat yóbbu léegi nag ñàkk nga ko ñàkk nan Cheikh Ibra nee ma muñ rek nee sëñ Tuubaa dem ci tukki bi ba dellu si neen ñu ne ma lu ko dal yàqu teg lii lépp yow nee ndekete tuuma ja day gën a metti ndax bi sëñ Tuubaa ñibbisee sant ko moo borom gaawaan lal yañ doon yóbbu daaru marnaan gee loola tax ñu ne kalaame ko ci njarim ne ay fital la yor ñu ngi koy waxtaane démb bur suñ ko mëndoo fen taxaw seedeel ko foofu doyu mu roccee ku ci guddi gi dem daaru mar naan giseeg sëñ bi wax ko li tubaab yi nar del si wat jël mantoom teg ci taabal ji ak suufu siin na su fekkee ne bisit ngeen daaru mar naan fekk fa ay ngànnaay ray leen ma jël suufu siin waaye sëriñ bay ma gis ca mbàkke amu jotu xeex tuuma yooyu toppaat na Cheikh Ibra ñu ne ko ko dal yàqu teg sëñ Touba dem ci géej dem dem jóge fa dem jóge Daaru Marnaan 1903 mu dem Gànnaar 1907 mu jóge fa ñëw Thiène Jolof 1912 sëñ tubaa ñëw Njaareem wàcc résidence boobu amul kër Njaareem de kii toog jëmm ji toog maamam ju jur ndeyam muy yéeli Manel Fall moo jur soxna Aminta Fall yéeli mooy wajuram wu jigéen sëñ Saliou Fall mi yéeli la tubaab yi woolu na ko. dama bëggoon dañoo bëggoon nga wutal sëñ bi néegi ñax ndax nee du dëgg ci néegi tabax yéele dem kër Baye Laye Gaye li may wax ko xam histoire xam nga ko Baye ak yéele ñoo simp seen i néeg sampal ko ku tedd ki sëñ Tuubaa dëkk na fa atak nangam door a dem sañ ci kër gu mag koro ba muy sañ ci kër gu mag suuf sa ku ñuy wax may sa njaayee ko moom doon ko jaay sëriñ bi gis ko jënd ko le 22 mai 1917 maa teg sama bët sëñ Sidi Naar Jaana ma ko woon may sa njaayee signé tubaab beneen témoin signé sëñ Isaa Jéen signé ci turu sëñ Tuubaa suñ sii Naar Dieng moo ma ko won na ma lii ci sama bàyyi laa ko jëlee ci sama maam sëñ Baara Dieng ma gis signature ya titre foncier kër gu mag sëñ sëriñ bi ci boppam daa di daa di daa di waajalaat kon ba nga xam ne tukki ba mat na nag nga xam ne ñëw na njaareem nag Cheikh Ibra laay waxal de nee na ma dégg bis ku sikar ba mu yàgg ci biir kër gu mag mais am na ku ca ton nag na ma faa lii lépp yow a man a ah ndekete yàlla nii la mel kon aw xas dina mujj doon aw tagga waaw sëñ Yuusu lii lii lépp yow yi démb ji aw xas la woon waaye lii lépp yow yi tey aw tagg la moo tax ngay gis gars yi di sikkar bu seen yaram di tàng ñuy njàmbaas mënut a ñàkk ndax xam nañ li xew te xam li xew yombul naan ko yaa di saabum ngëneel fal gàkk jaaxul la yaa ma doy dafa tiis fa la ñu góor ñu ñibbi am na ko ma ne sama bàyyi nee na ma toog naa fi Cheikh Ibra am kuy sikkat ba mu yàgg na ko sañ nga ñoo jàpp jaay mbaa nga yeew ñi sax dañuy maye Seera Faal na gis na hee hee doom wax na dëgg de damaa liggéey asgor ba mu fayee ma leen ba mu kon Cheikh Ibra li mu am du koo jënd kenn mayu ko ko te ku ñaan ñàkk seen maam nee boo jëndee am dafa jaayante ndax bi muy bàyyi ko ciy bokkam. ah jërëjëf Fall. Serigne Saliou Fall ah. nañ toppandoo Serigne Saliou. nee na nañ toppandoo eh, jox leen ko waaye li jar na de. cey bu doon tey. waaw. eh. ana ana ana soxna yi. la ilaha illallah jërëjëf Fall. ma Mamor. ah. waaw soxna maam wax ne dafa am njëg jënd. taalif boobee ma taalifoon maa nga cay wax naan maye yorul njaay leble it yorul njaay able it yorul njaay wutil njag ba am njaay jënd gën ci am njaay moo gën it ci ki jaay kon kon kon waxtaan wi damay damay bañ mu xababal li nga wax dëgg la waaye ñaar ñi seen jataay da ngaa wax ne dangam dañ koo duppee Serigne Modou Moustapha Fall damay reprendre loolu Serigne Modou Moustapha Fall ci sañ-sañam moo ñëw dégg maam tudd ko tudd ko boppam. de jeexam sax <laughs> déggal nee na sëñ Modou Moustapha Fall ci sañ-sañam moo ñëw tudd Cheikh dab lay Fall ndar tudd ko boppam waaw Modou Moustapha Fall muy Cheikh Modou Abdoulaye Fall ndar. jërëjëf sëñ Yuusu seen maam Cheikh Ibra daa jënd ndax yoon wi ba Cheikh Ibra ñëw Mbàkke Kajoor fekk sëriñ bi ciy bokkam fekk fa mbooloo njëkku fa de fekk na fa lu mag fanweer ak lu topp waaye Cheikh Ibra nag neewoon na góor gi ñuy wax Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi ca ngaay njëkkuma kër sëñ ba doom waaye lu fa baax maa njëkk te yoon wi ku fi bëgg jariñu Cheikh Ibra ngay roy yoon wi ku fi bëgg a jariñu Cheikh Ibra ngay roy te yii xew nii ba fu ñuy xëyale ku tedd ki gontul fa Cheikh Ibra Fall lu ko may fii biir réew mi ak bitim réew a ci yam fu ñu la sëñ Touba gontul Cheikh Ibra ñu ngi ni ci ngont mi foo tudde sëñ Touba teg ci Cheikh Ibra lu ko may fu ñu yëkkatee xasida ba pare nañ lañ ci kuréel zikar lu ko may koo dëndaleeg photo ku mën a doon laay wax boo yàggee wër ñu la kii kum ba mu de Cheikh Ibra Fall ko may ku ñaan ñàkk boo jëndee am seen maam daa jënd waaw moo taxoon mboolem doomi soxna yi doomi buur yépp toppoon ko Serigne Saliou mii toog maamam mu yéeli Manel Fall moo jël doomam jox sëñ Modou Moustapha Fall te loolu Lat Joor Cheikh Ibra dencoon na doo Gédéel Mbóoj Cheikh Ibra dencoon na doo Mbaar Joor Siga Cheikh Ibra dencoon na doo Jéeri Joor Ndeela joxoon na ko jarbaatam ñoxo Mboore Màngara jox na ko jarbaatam kon parce que mënuñu koo jaay dara ndax dammel dee calaw mooy maam Seyni bu njaayee ndeyam ci doomi soxna boo demoon tey njare wàq yëpp njare yëpp njare xorondoom ak njare kër saaleeg njare wàqeeg njare goo ci dem taalu jàngu yaa fa des ba tey bu dee ci kajoor fanweer rek dammeel ñett yi masa falu ñooy maamam Lat Joor ci sant Jóob ci ci ndeyam la ko jëlee kon ceddo du ko rusu sukkal ab sëriñ du ko rusu raama waaye loolu nag suñu borom la moo xam ne situation bi jamono toll ngir mu xettali leen faaw mu jël koo xam dañ koy moom ci ceddo mën ko ci sëriñ ceddo yi duñ ko seexlu sëriñ si duñ ko seexlu mu boro ko borom jamono moo tax Seex Ibra ñépp daan nërmeelu ci wetam di raam di jëm si ci moom koroog ba muy toxal mbaar ca njukki Seex Ibra gànjul la bàyyi ko te mbaar moo fekk sëñ Tuubaa gànnaar na ko àjjana ju te jaamu yàlla la bëgg sëñ Tuubaa na ko dellu fa nga bàyyikoon toog diglu ma mbaar dellu su njukki te moom moom dëkk ba de Seex Ibra bàyyi koo gànjool dox ba egsi ci daqaar gi woon ci njukki toog fa am ci ñi mbaar nekkal ku ñëw na ko gis nañ jaay yàlla juñ seen sa taatu daqaar gi mbaar na mbaaru saa waaj la waxoon da koo def mbaar nuyoog Seex Ibra maam Seex na ko noo tudd mu ne ko mbaar jóor siga mun ne ko tudd naa Ibra Fall mbaar bu ngalawee mu mu naaw bu tayee mu senn mba mbaar bu ngalawee mu naaw bu tayee mu senn tudd naa Ibra Cheikh Ibra gane mbaar ay fan bés bu set maam seex jox ko këll warloo ko ci mbaam yalwaan loo ko te boobu mooy buru dëkk bi kon xanaa am na lu muy dindi ci moom Cheikh Ibra toxal mbaar des ak des ak ceddo ya nag ceddo ya dëkkoon ci dëkk ba nag lañ daan jëfandikoo Cheikh Ibra indaale fa bisaab bu bari ak buy ak daqaar saa bu xëyee jamb ca lu baree baree bari suñ indee seen biteel yooyu ñu jëfandikoo Seex Ibra gas am leeñ sotti ko ca jël loolee mu jamboon muy daqaar yaag bisaab ya duy ko ci biteel yi ñu cay naan lu bari te duñ man di ñu xëy xëy génn dekkere ne képp ku fi daan naanati liñ fi daan indi bu mu ko fi indeeti lii fi Ibra Faal indi nañ ko wëri fu mu am di ko naan sëñ Moussa feelu ko ne ko diggante njukkeeg jamatin dañ daan dajee naani butéel yaa tax ñu jébbal teel ceel fal njege yaa rëy pexe mu nekk sàq ki sugeer dañ daan faloo koy falu buur yaa tax ba dina defalee tuxal nga pon mañ daan toxe keroog ba fa Seex Ibra jóge la la la la mbaar jël doomam ju jigéen jox ko mooy soxna faal mbaar Seex Ibra dëkkoo ko am ca soxna asu faal mbaar njaarim la gën a jamono Seex Ibra jox ko Serigne Touba addiya na sama doom nag bu demee ko Serigne Touba du dellu ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba moo ko jël jox ko Cheikh Mouhamadou Bachirou Mbacké mu am ci Serigne Cheikh Asu Faal ak soxna Xadi Bachirou waaw ñoxam moo màngara ñëw dikk ci ku tedd ki njaareem sëñ Tuubaa ne ko loo tudd mu ne ko ñoxo mboore màngara sëriñ bi ne ko loo bëgg mu ne ko tuub mu ne ko loo yor ñoxo mboore ne ko yor naa junni ak juróomi téeméer ci ngurdu sëriñ bi nangul ko ak tuubam tudde ko muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy muudu màngara sëñ Tuubaa téye ko ci kër gi di ko rotloo ndaa yi di ko taxanloo mu am ñaari mbokk ñaari doomam ak jarbaatam ñu ñu jigéen sëriñ bi boole ko Cheikh Ibra Fall mu indil leen maam Cheikh Ibrahima Fall muy ñaari jigéen kenn ka ma nga tudd Buyiga Màngara ka ca des ma nga tudd maam Soxna Fall Mbenda Cheikh Ibra jox jël Buyiga Màngara jox ko sëñ mu Gueye Ñaay mu dëkkoo ko am ca Soxna Khady Gueye ñu jël ko jox ko sëñ Modou Moussa Fall mu taawloo sëñ Cheikh Fall Khady Gueye teg ci sëñ Assane Dabaye Cheikh Ibra dëkkoo maam Soxna Fall Mbenda 1904 sëñ Modou Mbenda gane jamono tasineer Cheikh Ibra de benn la waaye dana barkeel tey barkeel mën naa weesu sëñ am ni Moodu Mbendaay Cheikh Ibra Fall ah! jërëjëf Fall ah, waaw ah, saa si Kumba Bale doomi Gédal la dem ba nga xam ne nguur gi jege na ko mu ne moom ay falu buur ak doon yilif du ko ci fekk de moom taalibib Sëñ Tuubaa la bëgg doon bi mu ñëwee njëriñ ku baax ki ci boppam Cheikh Ahmadou Bamba kat xanaa xamoon na saa si fekk fekk si complication yi ñëw na njëriñ ba tay fekk si ko naan ko lu tax ngay bàyyi sunu lii di toppee mu ne leen doon taalibu Sëriñ Tuubaa ma gën a lii sëriñ bi ci boppam moo ko jël jox ko soxna Fat Jaxate ndey sëriñ Saliou moo ko yor ci biir kër gi ba mu yàgg ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba bind leetar jox ko Baye Malick Ndiaye ma ko daa yéeneel na ko yóbbul ma saa si joxal ma ko Ibra Fall nee ko na ko dëkkoo maam Cheikh dëkkoo ko am ca ñeent bant ñeent dundu soxna Rama Mbaye mu soxna maa ummi faaloom Cheikh Ibra Fall ramatulaay mañ ko tudde doomi saasi la ak Cheikh Ibra xuru Mbàkke lañ ko denc ñeent la ca Cheikh Ibra am dunduñu ñeent ba fi maam Cheikh bàyyi ko Serigne Mor Talla Fall laay wax de moo jël maam saasi dénk ko maam Saliou Fall baayam di rakki Cheikh Ibra mu am ci Serigne Dame Fall Saliou waaw te ñoo ñëpp ngay gis doye buur yi lañu woon du du jeex ba ci xaar am naag Seex Ibra ñett am na fa Abdu Xaar am na fa am sëtu am na fa wëli ca doye buur ya la bokk mbaaxaan mi ak Ablaay Xaar Seex Ibra tax ñu doon murit moo leen jébbal ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba ndax su fekkoon su du woon ak Seex Ibra koroog bi mbaaxaan di ñëw bëkk néegi duñ ko bàyyi mu gis ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba ndax ñëw na ba ba pare bañ gantal ko mu dellu ci Cheikh mu door a dem ci Cheikh Ibra bu fekkoon na mbaaxaan ba mu egsee gis na ku baax ki foofa mën na faa sëñ bi nangul ko tuubam du jaar ci Cheikh Ibra Fall waaye lañ ko tëju moo tax ñu ñu xelal ko na ko boo bëggee ci sëñ bi dara dangay ngay jaari ci Cheikh Ibra Fall moo tax sëñ Moussa ko lu mu la wax bu ko def wala fa lay neen def ko ndax ne ndabal sëñ Touba yaa yóbbu mbaaxaan ca xafoor ay wax la de yaa tax ba xol ba dutu fuur yaa tax mu sànni yettu buur foofu yottu ngam duwut texee yaa tax ba Abdoulaye xaar mii doomi la Joor a de taxaw fu buntu dafa xaar woyof lu bay lekk Dakar ngi sopp Bàmba mi joxe la xewoon ci daaru naan ci diggante mbaaxaan ak tubaab yi bi ñuy attaqué kër gi yooyee la mag ñi doon fàttaliku te Cheikh Ibra Fall xam na ne bàkkaar moom lu muy rëy dañuy tuub rek dangay ngay tuub keroog bi jag egsee sëñ Yuusu sa maam Cheikh rek a xam sëriñ yaa xam sëriñ bi yaa daawoo werante kub sëriñ bàjju bi yaa bëri ngërëm waaye wana wa yàgg ngaa naxe keroog bi maam Cheikh ne jàkk ku tedd ki mbaaxaan sukk daf ko ne mbàkki dimbalil mbaaxaan na ko mbàkki firaw naak borom ga mbaaxaan mi yëggu te yàggan Muusa good. Oh, kon nag damay wàcc sama kàddu ndax am na ci loolu bu ñu ko toppee dana sori waaye dama bëggoon rek sëñ Yuusu tënkal leen tuuti ci fii nga xam ne fi la liggéey Cheikh Ibra Fall bi toll ndax day baax nag bu murid yëpp daje ngont mi ñu dara ko maam Cheikh Ibrahima Fall dara jaale ko ko baaxoo na nag ñu wax nun ñi nga xam ne noo xëyee fa kër Cheikh Ibra ànd ak kilifaam kilif suñ kilifa yu baax yii wax leen lañ fa baax fii ñu toll nii sëñ Yuusu Cheikh Ibra ëpp yi sànc ci yoon wi waaw man nag foog naa yaakaar naa moom du ma ko fi wax ndax fa laa xëyee Cheikh Ibra ëpp yi sànc ci yoon tayit liggéey bi gën a metti ci liggéey yi fii may waxe moo ko yor xam nga mooy ban liggéey sàmm war mooy Touba yombul de yombul de ndax Cheikh Ibra ci boppam jikko yi lay defar fi ne jikko yi waaw ah, ah, sëñ Cheikh Bintou yaa ngi may dégg waaw <laughs> ah, Fall yaram Cheikh Ibra li ma wax sëñ bi xam ne dara Cheikh Ibra fi ne daa toll ci fi ne sëñ Touba di ko defar jikko yi jikko yi maanaam fii may waxee yow nii liggéey bi ñu yor Touba ci sàmm warumay tuubaa mooy liggéey bi gën a métti ci yoonu murit ndax ndax bu dee sànce yi sax ay stade ba ca Mbàkke liggéey yi mën ngaa xëy suba ngoon jot nga wàcc wala heure yi bu dee yeneen liggéey yi itam da ngay daje sa àddi yu joxe waaye waaye fi ne nii li sàmm war may Touba moom moom am na lool sax boo ko dee wax danaan la loolu nu mën a nekke ndax ndax li tax mooy da ngay tëdd ba 5 heures du matin wala 4 heures du ñu woo la téléphone na la kaa am na loolu lépp ci ndigal Cheikh Mouhamadou Mountakha la bokk nga xam ne fi ne am na équipe boo xam ne ci kër Cheikh Ibrahima moom duñ nelaw guddi moom ñoom guddi la ñuy liggéey lu bari li ngeen di gis ci image yi guddi lañ ko roñ guddi moo xam muy tux meeg yenn yu bon yi ñuy jëfandikoo ak colin yeeg njabarkat yeeg yi nga gis yooyu yëpp li ci ëpp guddi lañ ko topp guddi te lu naqaree gis la nag. li gën a maanaam ci sama kanam ci sama kanam laa de ke sëñ am ni Modou Mbène laa toog ñu am kuñ jàpp xamoo lu ñu ko jàpp lu mu fa indi boppu nit maa la wax loolu kenn du ma ne kenn maa teg saa bët maa fekke xanaa looloo gën a leer <coughs> mm-hmm. moom dafa indi bopp nit ci boppam nit ku ne jon do dox <laughs> waaw maam pour wax la ne la fi liggéey bi toll fi ne sëñ am di sëñ waa kii fal sëñ am di Modou Benda liggéey bii liggéey bii nga xam ne. jëwriñ soo de xuma waaw waaw bismillah sama yaaya ah. waaw sëñ am di Modou Benda li mu daj liggéey bi mu dajal <laughs> ab liggéey la bu rëy bu rëy rëy rëy ndax sëñ Yuusu wallaahi la tabax. dem ruji ay tool di loolu lépp garawul joxe addi waaye gis nga Touba nga xam ne sëñ bi daa woote ñëpp ñëw te ku ne aw am na noo ñëwee nga nga taxaw temm ngir corriger pas-pas yi ci biir maanaam maanaam lijjanti seen jikko yi ba mu tegu ci li sëñ bi bëgg ah loolu loolu loolu ab liggéey la te ndax bañ tàmbalee ba léegi liñ jot a nangu nangoo ci dëkk bi te bokkut ci li sëñ bi worma yi boo ko dajale woon fii daanaka xaw na koo fees bërki démb la sëñ bi wax na nañ ko gën a lakk ko lépp dañ koo taal ci pénjum Cheikh Rafal waaw jeex na lépp ba pare par équipe ay équipe lañ ko def ay équipe sëñ Cheikh Bintu mii ay waa këram <laughs> ñu ngi ci biir équipe bi duñ noppalu gudd duñ noppalu bëccëg suba ngoon guddeeg bëccëg am na ñooñ 23 heures la ñuy commencé monter ba ba 8 heures ci suba ci terrain bi. su fekkee ne lu jëm ci xeetu bon wala yu mel noonu yoo xam ne police wala gendarmerie da ci am yoon buñ ko buñ leen jàppee police lañ leen di jébbal ak loolee su fekkee ne ne yeneen yi ci des cof col raf rafle geeg wa yeneen wati wateef yi nga xam ne du watu nu murit ak tubéy yi jàmbur yooyu yenn yi ak xeet yu mel noona ak naano yi ñuy yor ak yooyu ñu tudde pëste fa xeet yooyu nga xam ne yu ñàkk jom la yooyu moom am na ci yu bari yoo xam ne dañ koy lijjanti ci kër bi képp koo xam ne indi nañ la ci kër sëñ maanaam danañ la jaarale aw yoon bi boo génnee moom dootoo ko defati yow waaw yooyu yëpp fu ne xeet la ci ay liggéey yoo xam ne tey jii eh, loolu sëñ sëñ bi doon wax naan naan ko sëñ sëñ Fallum sëñ Modou te wax na ko ñoom ñëpp sëñ mu Mbaro wax na ko na sëñ bi nañu nañu may tuuti rek buñ ñu bu ñu nañ moytu intervention yeeg buñ ñu gaaw a artu nañ ñu may tuuti rek li sëñ bëgg dana am dëkk bi dana leer nañ dana set wicc dana dem ba kum neex. fu la neex ci dëkk bi nga nga lal fa sa basang teg say bagage sa lépp loo soxla te fanaan ba ba set te kenn du la laal kenn du la wax noo noo ko defee liggéey yooyu nag ñu ñu toll ci di ko liggéeyal Seex Sëñ Touba ci biir dëkkam bii di Touba njaboot njabootam gii ñoo ci jiitu moo tax jamono yi boo gisee amuñu benn jot te sëñ Cheikh Bintou mi Touba la bàyyi ko ñëw ànd ak njaboot gi yëpp bàyyi Mari Sarr mais Kaolack la bàyyi ko <laughs> ah kon day da ngay xame ne liggéey yooyu ay liggéey la yoo xam ne njabootu Cheikh Rafal gii ñoo ko yor Serigne Saliou Fall mii nga xam ne kilifaam Serigne seex Ndiaye Mbeng moo jiite ki sëñ Modou Moustapha Fall ak ay magam sëñ Saliou sëñ Assane ak sëñ ñëpp liggéey yi ma di wax ñoom ñëpp ñoo jiite loolu waaye dañ ko nag teg ci loxol seen seen njaboot ñu di ko saytu nga xam ne ay njabootu seex Rafal ñoo xam ne direct Cheikh Rafal lañ guddi gi ñoom ngay gis ñu monte ci benn koñ mbaa ñu monte ci ko ñu daaree kéem wala ko ñu jumaa ji wala fenn ci dëkk bi fanaan fa ba bët set fanaanee xool ngir saytul Cheikh Mouhamadou Mountakha war may Touba kon nag liggéey yooyu su amee jar na àdduna bépp teew ñu xam le ne liy tax Cheikh rafal Fall amul jot njabootam amuñu jot ndax dénk nañ leen liggéey boo xam ne moom liggéey gënu koo métti gënu koo jafe ndax ku ne xam na ne booy sàmm we téeméeri xar mën ngaa yor wenn yat waaye téeméeri nit nit ku nekk ku yatam te it leneen li ci des itam mooy lépp daa daa daanuwaat ci kaw njaboot ndax lépp rek sëñ bee ko jaboote waaye faaw rek jikko yi moom ñu defar ko loolu nag laa ne woon danaa ko leeral ci samay kàddu yu mujj li ci des nag mooy addiye yi nga xam ne moom bés bu yàlla sàkk mu ngi bàyyi ci Serigne Touba si mi ngi bàyyi koo ci Cheikh Ibra Fall di dem ci Serigne ndax Cheikh Ibra kat ci mujjam dafa waxoon Serigne Touba ne ko dinaa la jox addiye ba tëdd sax sama bàmmeel di la jox addiye ba fii may waxee yéen ni barabu Cheikh Ibra la fay bàyyi ko du dem ci kenn ku dukki fi nekkal sëñ Touba sëñ am di Modou Mbenn mii bi mu njëkkee toog cinquante nag yoo xam ne ci màggal gi la ñëw gannaaw màggal ndax lii ñëw ci bisu màggal sax da koy denc su màggal gi jàllee mu boole koog li fi ñëw lépp joxe ak 16 giléem ak 17 millions yoo xam ne ci barabu Cheikh Rafal la bàyyi ko mooy siyaar yeen ñi fay siyaar tey Cheikh Ibrahima man ñëpp ci addiya ndax joxe ne addiya ba tëdd tey jii xabroom bee di joxe addiya 17 millions yooyu ak 50 nag ak 16 gëlëm la njëkk a nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha mi Serigne Touba Cheikhul Khadim mi ngi koy waajalaat nii su jógee gàmmu Thiès lu fi nekk dana ko dajale yóbbul ko ki nga xam ne mooy Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha kon lii la Cheikh Ibra nekk lii la ak njabootam nekk leneen lu ngeen dajeel nag du Cheikh Ibra de leneen lu ngeen dajeel maa ko wax fii du Cheikh Ibra Fall sëñ Cheikh Bintou mi fii mu toog ku ko xam xam ko digganteem ak kilifaam gii xam na dara du yendi fi moom dara du fanaan fi moom guddeeg bëccëg suba ak ngoon mi ngi ci liggéey sëriñ bi mi ngi ci jox sëriñ bi mi ngi ci saa su nekk ndigal sëriñ bi sëriñ eh, Saliou Fall mii ci loolu lay xëy ci loolu lay gont kon nag Baye Fall amut jot keneen ku ngeen gis nag mu ne ci àll bi taxawaalu na ngeen lijjanti fu mu doon ak fa mu bokk waaye bokku ci kër Seex Ibra ndax Seex Ibra amul jot ak ñooñoom amuñu jot wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh